mbokk yi alhamdulilah ñu ngi war a jël li ñuy tuddee baabu zikr wa du'a alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu daje cib néegam fas yéene fàttaliku la nga xam ne mooy waxi ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax yooyu nga xam ne alxaafis ibnu xajar rahimahullah moo ko dajale ci téeréen bii di bulughul maram mu def ko muy fukki téere ak juróom benn ñu yegsi ci téere bu mujj bi muy kitaabul jaamic téere boobu it mu def ko juróom benn bunt ñuy war a dal tey bunt bu mujj bi kon bunt bi mooy bunt bu mujj ci téere bu mag bi di bulughul maram ñu ngi tombe li nga xam ne mooy fukki fan ak benn ci jumaada saaniya ci 1440 noom fukki fan ak benn am ñaar ñaar fukki fan ak ñaar waaw noom fukki fan ak ñaar loolu muy wane ne suba muy fukki fan ak ñett ci yow mi bëgg a woor la ñuy tuddee ayaamul biit di tombe git le 17 février 2019 bunt bi nga xam ni moo ko ubbi comme ni ñu leen ko waxee sànq mooy li ñu tuddee baabu zikri wa du'a
الباب السادس باب الذكر والدعاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسلام إسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم
kon bokku lii mooy baabu zikr wa du'a zikr mooy fàttaliku suñu boroom subhanahu wa taala daf ñoo wax ci téeréem bi ci place yu bari bokk na ci yaa ayuha alladina amanu zkuru llaha zikran kasira ay yéen julit ñi dee leen fàttaliku yàlla lu baree bari mu wax ci it ni ñiy boroom xel ci jullit ñi mooy allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mooy ñi nga xam ne bu ñu taxawee ña ngay fàttaliku yàlla bu ñu toogee ña ngay fàttaliku yàlla bu ñu tëddee ña ngay fàttaliku yàlla te it loolu mu lay wan ne amul benn taxawaay bu nit di taxawaay ci kaw suuf lu dul am na zikrullah boo xam ne daa méngoog moom zikrullah boobee ñett a koy def la nga xam ne mooy ab xol xol bi di bàyyi xel la nga xam ne moom la làmmiñ bi di wax léeg-léeg xol ba kese mën nay nekk di xalaat ci kawtii fi yàlla yi ak màggaayu yàlla yi loolu zikr la ñaareelu zikr bi mooy zikru làmmiñ làmmiñ boobee di tudd yàlla subhanahu wa taala loolee wàllu gu màgg la ci wàllu zikr gannaaw ba mooy mbooli mi jëf yi ngay def di jëfi jaamu yàlla looli zikr la looloo tax julli ci boppam nekk zikr wa aqimi salaata inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar kon loolu mbokk moom mooy zikr amma bu dee du'a du'a moom mooy ñaan bi ngay ñaan yàlla imma nga ñaan ko ci sa làmmiñ wala nga ñaan ko ca xaal ba nga nekkee yooyu yépp ay façon la yoo xam ne dina ñëw ci kanam xadis bi nga xam ne moo ci jëkk mooy xadis abi hurayra radiallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني ما أن السما جام في ما يفتلكو وتحركت بي شفتاء mu nekk di yëngu ngir man la nga xam ne mooy ay tuñam axrajahu ibn maaja wa saxahu ibn xibbaan wa zakarahu albuxaari taaliqa mbokk kon gis nañu suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam ne yàlla nee na yàlla nee na ci li mu wax kenn gisu ko ci alquran naam loolu la ñuy tuddee xadiisul qudsi cosaanu diine ñett la alquranul karim mi bawoo ci yàlla nga xam ne amul benn sikk bu ci nekk amul luñ cay yokkoon luñ cay wàññi lu dul jurit ñépp xam nañ ko ñaareel bi mooy xadiisul qudsi muy loo xam ni moom ah la nga xam ne mooy wax ja dafay bawoo ca yàlla waaye nag nañ koy waxee ci yonent bi alayhi salaam la jóge sans su wax ji moom ci yàlla la jógee mais nag yonent bi moo ko jottalee ci waxinam moom looloo tax kenn du wax waxi yàlla la waaye nag xadis lañ koy tuddee xadis bu yonent bi wax waaye qudsi lu tax mooy dafa cosaane ne lii yàlla ko wax loolu mooy ñetti ñaareelu degré bi donte ne am na ci wér am na ci wérul mu safaanoog alquran ñetteel bi nag mooy xadisu nabawi mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax ca waxul yàlla nee na loolu moom lañ koy tuddee xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci biir loolu la wax ne ah man day maa ngi ànd ak sama jaam fii ak sama jaam mi ngi may tudd fii ak sama jaam ay tuñam mi ngi yëngatu ngir man mbokk gis nañu ne zikrullah mooy jaamu yàlla moo tax mu ne abdi ki nga xam ne day fàttaliku yàlla mi ngi fàttaliku boroomam boobu nga xam ni léppam ci moom la jóge léegi nag suñu borom mu ne maa ngi ànd ak moom fii mi ngi may fàttaliku loolu mbokk muy war ci ne yow jaam ngalawaay looy dugg ngalawaay foo jëm bul fàtte di fàttaliku sa borom suñu borom mi ngi ñuy wax ni yaa ayuha alladina amanu ida laqitum fiyatan fasbutu wazkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun mi ngi noonu su ngeen bëggee texe su ngeen dajeeg seeni noon ci toolu jihaad day leen de zikrullah lu bëri lu waral loolu in ana ma a abdi ma zakarani suñ borom nee na fii ak jaam maa ngi fàttaliku maa ngi ànd ak moom loo mën a sàkku ji ci mbiri àdduna ci wërsëg waa lum mën a doon suñ borom nee na fa ida qudiyati salaa fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillah wazkuru llaha kasiran laallakum tuflihun su julli gi pare ngeen dem di tasaaroo ci kaw suuf di sàkku ji ngeen lu yàlla day leen tudd yàlla lu bëri ngeen ngeen texe lu waral loolu ana maa abdi ma zakarani suñ borom mu ne maa ngi ànd ak sama jaam fii jaam bi mi ngi nekk di ma fàttalikoo loolee kon mbokk di mbir boo xam ne nii dañ cee war a bàyyi xel bu baax waaye suñu borom it teg ci ne ay tuñam mi ngi yëngatu ngir man ca loolu it léeg-léeg lu bari ci nit ñi bu ñuy julli seeni xel rek mooy wax seen xel rek moo jaar ci la ñuy wax duñ ci bàyyi xel waaye nit ki da nga war a bàyyi xel zikrullah mu ànd ak sa làmmiñ di loo xam ne da nga koo tudd looloo tax ba lenn ca borom xam-xam yi sax dañ naan li ngay wax yow war nga koo dégg ba xam ne lu jub la subhanallah la wala alhamdulillah la wala lu mën a doon ay tuñam di yëngatu ngir man mi ngi noonu mu bokk ci it ab julit gannaaw ba mu xamee valeur zikrullah mu bañ a fàttee la yonent bi alayhi salatu wasalaam dénkoon Muaz ibnu Jabal neewoon na ko ay Muaz man de dama la bëgg bul fàttee foo jullee ba pare del wax allahuma a inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala xusni ibadatik e yàlla yal nag ma jàppale dimbili ma ci ma lay fàttali ko dimbili ma ci ma lay sant dimbili ma ci ma lay jaamu jaamu goo xam ne jaamu gu sell la loolu nga la way bu ñu koy fàtte ci waxtu bu ñu jullee ba ba pare bu dee xadiisu ñaareel bi an Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma amila ibnu aadama amalan anjaalahu min az min azabillah min zikrillah doomu aadama day jëfalul benn jëf boo xam ne dana ko gën a mën a musal ci mbugalu yàlla ci lu mel ni zikrullah ba muy def ay fàttaliku ga muy fàttaliku boroomam ci xolam ci làmmiñam ci ay jëfam mbokk loolu muy zikrullah na am liy musale ci mbugal bëri na waaye bokk na ca ya ca gën a am solo jaam bi di baril di fàttaliku boroomam loolu dana fegal nit ki mbugalu àdduna waa ji nga xam ne mi ngi sax rawatina di jéggulu ay bakkaaram astaghfirullah di baril di wax zikrullah al baqiyat as-salihat loolee dana fekk mbugalu àdduna bu yàlla naroon a teg ab jaamam dana ko fegalit mbugalu bàmmeel dana ko fegalit mbugalum ëllëg yowmal qiyaama ca loolu yonente bi alayhi salaam mu ne amul lu ca gën a mat gën caa gaaw lu mel ne loolu nga xam ne moom mooy zikrullah bu ñu xoolee sunu xadiisu ñetteel an abi hurayra radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maa jalasa qawmun majlisan ay nit tooguñu ab toogaay yazkuruuna allaha fiihi di tudd yàlla ca toogaay boobe illaa xafat illaa xafathum almalaa'ika lu dul mu ñëw wër leen malaaka ya wa xashiyatuhum rahma mu yiir leen yërmande yàlla wa zakarahum allahu fi man inda yàlla di leen fàttaliku ca ña nga xam ne nii ñoom ñoo ne ca moom ca mooy malaaka yu kawe yooyee bokk li mooy zikrullah bi nga xam ni xadis bi ngeen yàgg a dégg muslim solo na ko nii yemale ko rek ci toogaay buñ toog di zikrullah donte ne am na beneen xaris bu mu génne mooy ay nit dajewuñu ci néegub yàlla ba di jàng téerab yàlla bi lu dul mu wax ci ñeenti yooyee nañ xam ne bokk zikrullah bokk na la ca gën a baax mooy téerab yàlla bi ay nit daje di jàng téerab yàlla bi amul zikr bu gën a baax boobee mi ngi noonu mooy afdalu zikr waaye gannaaw loolu toogaay yu ñu toog di ca def zikrullah loolu dañoo toog ku nekk yaa ngi def sa zikr wala ku ne yaa ngi jàng sa alquran loolu da ngay gis ne yiw la ba yonent bi alei salaam wax loolu xadis yu mel nii nag tax na ay nit di dajaloo ànd di def ay zikr zikr yoo xam ne dañuy booloo di ko def waaye nga la waay mbokk li ñu leen di wax kenn gënta xam waxi yonent yàlla bi yonent yàlla bi ci boppam ak i sahabaam ndax loolu mën naa nekk déedéet kenn mënta xam wax yonent yàlla bi lu mel ne yonent yàlla ak i sahabaam mbokk nañu xam ne yonent yàlla ak i sahabaam amul benn xadis bu ay nit mën a wone boo xam ne dañ daan géew àndandoo لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر الله أكبر yonent bi mosu koo def ba mu fi jóge ay saxaaba mosuñu ko def li ñu tuddee mooy zikrullah bi sawtin wahid amma ca jamono bi yonent bi faatoo ba saxaaba yi des fi gis nañ ci Iraq am na ay nit ñoo xam ni dem nañ ci seen jàkka imam bu sëlmale daal di jàkkaarloog mbooloo mi waaye ñu sabbal yàlla waay téeméer mbooloo mi àndandoo subhanallah subhanallah subhanallah bu ñu paree ah ñu sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah abu musa al ashari fekke ko ba mu ko fekkee booba abdullah ibn masud moo nekk foofu comme gouverneur mu dem na ko ah man de ibn masud jàkkatel de gis naa fa lu ma yéem mu ne ko loo fa gis mu nekk lu ko lim fa gis mu ne ko loo leen wax mu ne ko ah man bi waxuma leen dara dama leen naa ñuy wax lu ko yow mu ne ko ah baax na ibnu masud ca suba ga mu dem jullee ca jàkka ja bi ñu sëlmalee imam def pare gestu ci mbooloo mi waaw ñu jéggulu yàlla téeméer gaa yi commencé rek mu jóg dogg seen biir di këdda di padd di këdda di ñu ne ko waaw ibnu masud ah waaw li lan la mu ne yéen day sos ngeen bidaa ci diina ji ëpp ngeen saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam yéen di yéen ëpp saxaaba yi xam-xam ba xam ci diina ji ñoom lu ñu xamul ñu ne ko moo ne di Ibn Mas'ud lii ñuy def la yàlla rek tax ñu koy def yiw rek lañ ci bëgg te effectivement yiw rek lañ ci bëgg mu ne leen nag ana ñaata ñoo sakku yiw ci amuñu ci ak yiw su ngeen bëggee yiw roy leen te bu leen sos ittabi'u wala tabtadi'u mbokk loolu yiw ñu bëgg yiw xoolal fa yonent beeg saxaabaam nañ naan def nga def ko waaye duna yiw xool ne lii war naa neex yàlla déedéet sa mbokk nit sax léeg-léeg nga jàpp dara war na koo neex fekk loolu neexu ko waxumaa nag sa borom loolu kon mbokk ñu xam ne dajaloo ànd jooro ci ay kaddu loolu lu ñu sos la ci diine ji waaye diine xamu ko am maa toog di zikrullah tey jii avant ñuy julli di mbooloo ngi toog jàkka ji di xaar julli ku nekk di zikra aha kay suñu sëlmalee da ko yéen a ngi toog ko ñu def say tasbih aha kay mboolem foo xam ne ay nit nekk nañ fa toog di di tudd seen borom aha kay loolee da ngay gis ne daf leen di jural la nga xam ne moom mooy malaaka yi ñëw wër leen ndax malaaka yooyu suñu borom bind na ay mbindaa fon te ji rek bu lu xasaw amoon fii da ngay gis weñ ñi dañuy daal di ñëw na am ndax da leen di xeeñ boo demoon lu mel ne ay tan lu mat junni kilomètre tan mën na ko jëli la nga xam ne ay médd su ko defee loolu mi ngi noonu malaaka yooyu tamit zikrullah am na xet gu ciy génne goo xam ne heure bu ko malaaka yi xeñtoo dañuy ñëw wër leen ànd ak ñoom ci zikr boobu muy benn suñu borom yàlla wàcce ci ñoom yërmandeem palaasu zikr day nekk place wàcce yërmande yàlla jalla wa ala yal na yàlla boole ci suñu place bi gannaaw ba it suñu borom di leen tudd ca malaaka yi nekk ca kawe ca moom ñu ngi noonu mooy ñoom jibril ak mikaayil ak xamalatul arsh nga xam ne ñooy malaaka yi gën a kawe naan leen xooleen sama jaam yi ñoom dañu ngay bàyyi seen itte toog ngir di ma fàttali ko mi ngi noonu loolee nekk aw tagg wu rëy nekk ay ngëneel yu rëy mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ko jagleel ay jaamam ci mbaaxam ak yërmandeem
wa anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma qa'ada qawmun maq'adan lam yadkuru allaha fihi wa lam yusallu ala annabiyyi sallallahu alayhi wa sallam illa kana alayhim hasratan yawma alqiyamah akhrajahu at-tirmidhi وقال حسن وعن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد إسماعيل متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله مثل زبد البحر متفق عليه وعن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم
kon mbokk xadis bi nga xam ne moo ci tege wa anhu jële nañ ko ci abi hurayra ba tey radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قعد قوم مقعدا أي ند دنيو توك أب توغاي لم يذكروا الله فيه تتدنيو فيالله walam yusallu ala nabi ca julli wuñu ca yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illa kaana alayhim xasratan yowma alqiyama lu dul mu nekk ci ñoom ak rëccu ak pertaange gu leen di jural yowma alqiyama axrajahu tirmidi i ngi noonu mbokk jàng nañu sànq suñu borom di wax ne allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'uda borom xel yi mooy fu ñu nekkee ci taxawaay daañ tudd yàlla waaye fu ñu toogee daañ tudd yàlla loolu tax yonent bi alayhi salaam ne ay julit bu ñu dajee ci benn place ñu waxtaan lañu fay waxtaan ba waxtaan ba jeex ca kenn waxu fa ca yàlla nee na wala yonent yàlla bi nee na bu ñu demee yowmal qiyaama fàttaliku ko loolu ak rëccu gu mag a mag dana leen ñeel ndax la nga xam ne rëcc na leen ñu yëg ko ci pertement loolu mbokk nga la way ay julit heure bu ñuy waxtaan war nañuy bàyyi xel seen boroom événement yi am war nga ñuy wax ne ah suñu boroom yàlla day nangam ki nangam nit ñi di ni ñuy gisee dañoo xamul ne yàlla nangam ki nangam voilà yonent bi alei salatu wasalaam day lii la doon wax nangam ki nangam loolee mbokk da ngay gis ne yéeféer yi fàtte nañ yàlla yàlla fàtte leen fàtte nañ yonent yàlla yàlla fàtte leen amma yow ngalawaay bul mel noonu gis nga boo demoon ci nit yi bidaa yi nga xam ne dañoo gëm seeni bidaa ña ca jël ay sëriñ teg leen place yàlla doo toog mukk ak ñoom lu dul wax du ñuy wax rek daañ ko jàngal ci sëriñ boobee ñu gëm loola tax yow jullit nga war a góor góorlu ci loolu moytu toog ay toogaay yu yàgg yoo xamee ne nii turu yàlla du fa jëpp kenn du fa julli ci yonente bi alei salatu wasalaam loolu moo tax ba dañ naan bokk na ci jataay yi tedd mooy jataay yi ñu jàngale xadis wa gaa yi bañ fi commencé ba léegi ñaati yoon la ñu wax annabi salallahu alayhi wa sallam te loolu it mi ngi noonu boo toogee ci place kay jàngale bu tuddee yonent bi da julli ci moom yow da ngay julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu loolu di ay ngëneel yu mag ab jullit war koo tàmmal boppam war a it di moytu kemtaleel kàttan ay débat yoo xam ne des heures et des heures lay durer ca qaala allah amu ca qaala rasulullah amu ca la nga xamee ne it mooy bu munta ñàkk ba munta ñàkk nga xam ne jataay ba ba nga fay jógee ba nga fay toog amul loo fa tudd ci yàlla amul loo fa julli ci nenti yàlla ngallawaay xamal ne loolu erreur la njuumte la rasul sallallahu alayhi wasallam joxoon nañ ci benn ordonnance nee na amul kenn ci yéen koy toog ci jataay bi muy jóg mu ne subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu ne amul koy toog ci jataay bay jóg wax ñaan googee lu dul ni yàlla dana ko kaffaaraal bépp njuumte boo xamee ne defoon na ko ci jataay boobee ca la ca nekk ci ay ngëneel it yàlla subhanahu wa taala fulal ko ko loole boo ko mënee loolu mooy la gën boo ko mënul la muy tënk rek subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah ñeenti kàddu yooyu lay tëgg subhanaka allahuma bihamdik mooy subhanallah wa- wa- wa- walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa ant mooy maa ngi seede la ilaha illa allah astaghfiruka wa atubu ilayk mooy maa ngi tuub di déglu ci yow loolee boo ko mënul ngalawaay bul fàtte heure boo toogee ci jataay bay jóg nga tudd sa boroom bokkoon na la gën a mat nga tëje ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ngiri loolee ëllëg boo demee alaxira fekk ko fa ba ñu doon koo xam ne da ngay rëccu jataay boobee ma yàqul sama temps ci neen mbokk mi ngi noonu amma bu ñu delloo ca xadis bi ci tegee ki koy nettali mooy abi ayub radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaala laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah képp ku ne laa ilaha illa allah mooy kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul yàlla wahdahu moom kese laa sharika la amul kenn kom bokkaaleeg lenn lahul mulk moo moom moomeel gépp di nguur geeg moomeel ga wa lahul hamd moo moom cant yépp ñeel na ko wa huwa ala kulli shay'in qadir ca moom moo am kattan ci lum mën a doon ashra marat ashra marat mu wax ko fukki yoon kaana kaman a'taqa arba'ata nafsin arbaata anfusin min waladi ismail muttafaqun alayhi mel na ne ko goreel ñeenti bakkan ci doomu ismail ba ko zikr bi yonente bi alei salaam nee na mooy lu gën ci lim mas a wax moom ak yonent yi ko jiitu ca mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu am na benn riwaaye bu waaji bi muy wax mu teg ci yuxyi wa yumit donte na ñëwul ci téere yépp loolee wa huwa ala kulli shay'in qadir moo am kattan ci lu ne nee na lii de képp koo xam ne wax nga ko fukki yoon naam mel na nga ko goreel ñeenti jaam jaam yooyu mooy ñan ca doomu Ismail ca it mbokk julit dañu xam ne suñu boroom bokk na ci famille yi mu tànn mooy famille arab nga xam ne ca la tànn génn ca yonentam tànn ca wàcc ca ab téeréem looloo tax njabootu ismail googu gis nañu ni dañu nekk giir yi gën ci giir yi firiwul nag ne arab sàngam moo gën ku ñuul wala ku weex waaye da ngay gis seen cosaan cosaan bu laap la mi ngi noonu ca naka suñu borom yàlla tànne loolu itamit mu wane kon goreel ca ñoom bokkul ak goreel ci keneen muy wane it na bokk kàddu la goo xam ne dañ ko war a baril fukki yoon ñeenti jaam téeméeri yoon ñeen fukki jaam ca mbokk goreel jaam yonent bi alei salaam ne na amul benn jullit buy goreel ab jaam lu dul jaam boobu nekk njot ci moom ci sawara cër par cër ba nekk njotam ci moom ci sawara kon nga goreel ca ñeent kenn xamul nu mu toll lii da ngay gis am na yeneen riwaaya yoo xam ne nii mën na am téere zikr bi indi ko waaye boobu day wax ne ku ko wax téeméeri yoon laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir téeméeri yoon nee na kenn du indi keroog benn jëf bu gën a màgg jëf bi nga jëf lu dul ko jëf ne yow wala mu jëf lépp li nga jëf te dana la sàmm ci seytaane ila axiri ak ngeneel yu bëri loolu nga la waaye nañ ko boole suñ programme yaa xam sa 24 heures fa ngay yeewoo fajar ba fa ngay tëddaat kañ nga ci am 10 minutes 10 minutes kese nga wax ci la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 fois mi ngi noonu kenn du gën a bisu keroog kenn mënul def lu gën a baax li nga def loolee ñu bàyyi ci xel bu baax laa ilaha illallah wax nañ leen ko mooy yàlla kenn yowul ñu koy jaamu ko dul moom jullit bi koy wax lan lay yëg ci boppam bi nga naan laa ilaha illallah yaa ngi yëg sa biir xol ne ah man day fas yéene wu ma jaamu ko dul yàlla yaa ngi yëg sa xol ne ah man kat jaamuk yàlla la yaa ngi yëg sa xol ne yàllaay suma boroom wañu ne kon moom dong nga war a doon kuy sakku ngërëmam borom bi feddali ko ci na wahdahu ay moom kese boo demee ci yeneen diine yi am na ñoo xam ne jàpp na am yàlla mooy yàlla bu màgg bi waaye nag am na ay petit yàlla lu mel ne Isa lu mel ne Mariama lu mel ne Useyru lu mel ne nangam suñu borom mu ne déedéet moom kese wahda gannaaw ba suñu borom mu ne amul kenn ko bokkaaleeg dara arab yi dañ daan wax di wër kaabe gi naan yàlla wahdaka la sharika lak illa sharikan huwa lak amul kenn ko bokkal dara lu dul bokkaale yi nga xam ne yaa leen moom ñoom ñu ne bokkaale yi ñuy jaamu yàlla naam ñoom it yàlla leen moom bu ko defee ñu leen di ñaan ndax ay yàlla lañu suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne la sharika la borom bi ne nag moo moom ngóoru lépp lépp yàllaa ko moom gaa yi yàlla ñu moom moom li ñu moom imam Sarr bu jàppee moom moom téere bi téere bi fan la jógee xanaa du matériel borom bi lañ jël assemblé ko jeex na ndax kan moo créé li ñuy defaree page yi kon yàlla mooy aji moom lépp looloo tax doomu aadama bi li nga jàpp yaa ko moom amoo droit def ca lu la neex mi ngi noonu ndax moomeel mutlaqi ko moom mooy yàlla yàlla da lay dénk rek léeg-léeg mu nangu dénk keneen léeg-léeg mu nangu dénk keneen loolu mi ngi noonu waaye aji moom dëgg mooy yàlla moom moom waa asamaan moom waa suuf moom la ñu moom ñoom lahul mulk borom boobu it ne cant yépp ci moom lay dellu ñeel na ko cant ci ay melokaanam ñeel na ko cant ci ay jëfam lu mu def rek dañ ko caa war a sant même bu neexul ci yow xamal ne yàllaay borom xikma lu mu dogal ci jaam rek yiw la ñeel ko looloo tax yonent bi jàngal ñu jullit bu yàlla dogalee ci moom lu ko neexul muy wax alhamdulillahi ala kulli xaal ñi nga sant yàlla ci lépp loo xam ne ni dogal na ko ci ñun moom la bu doon wax naan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr ak yéemi mbiru jullit léppam yiw la gàllawaay gëmal ne lu yàlla dogal ci yow ak lu mu naqari naqari naqari xamal ne suñu borom muy alxakim boo ko muñee muñ gu rafet wallahi day wëlbatiku natt boobu nekk yiw ñeel la mi ngi noonu suñu borom yàlla teg ci ne wa huwa ala kulli shay'in qadir mbokk yàlla mooy ka am kattan ci lépp loolu it muy yow julit xamal ne yow yaag malaaka yeeg nit ak jinne da ngeen ne limité wu amma sa borom yàlla nag moo am kattan ci lépp loolu tax lépp loo jàpp ne baax na ci yow yaa ngi koy sàkku ngalawaay dimbini kool yàlla sa borom te xam ne moom rek mooy aji man ci yow da ngay sabablu rek mais yàlla mooy dogal ca moom lépp lu muy dogal danaan ko kun fa yakun mi ngi noonu innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun daf naan ko amal rek mu daal di doon loo xam ne ni lu am la loolee kon mooy wa huwa ala kulli shay'in qadir ngan la way zikr boobu wattu leen ko jàngal leen ko njaboot gi ñoo dëkk di ko wax yonente bi alei salaam nee na man ak yonente yu jëkk yépp waxuñu lu gën wax ji amma xadis bi ñu mujj jël wala boog xadis ba ca topp عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة كوخ سل دي نيلنا يالا ما نجي تود سل نيلنا يالا عند جيت شانت غو خمنا نيلنا يالا نغو كتي مليون حطت عنه خطاياه daan ko teggil ay bakkaaram wa in kaanat misla zabadil bahr muttafaqun alayhi doonte ne ne ay bakkaaram dafa bari woon ni puurit ah bi nga xam ne dafay génn ca la nga xam ne mooy géej mbokk loolu kon dañuy gis subhanallah bihamdihi mooy yaa ngi tudd sellug yàlla ànd ak di ko sant sellug yàlla mooy subhanallah amul soxna amul doom subhanallah lenn lu bon du jóge ci moom subhanallah mooy aji sell ji wa bihamdihi ñi nga ànd ak di ko sant ca mooy mboole mi xéewal yi nekk ci kaw asamaan yi nekk ci kaw suuf mboole mi xéewal yi nga xam yi nga xamul lépp lépp ci suñu borom yàlla boobu la jóge mboole mi cant ci moom lay dellu subhanallah wa bihamdihi téeméeri yoon trois minutes la galawaay boo demee kër ga essayé ko xoolal sa montre subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi bu sa lammiñ yi gaawee deux minutes lay doon bu sa lammiñ yéexee trois minutes nga def ko trois minutes ñu baal la sa bakkaar yi même bu bëri woon bëri woon ba mel ni puuriti géej ca mbokk géej yaatu na ah la nga xam ne mooy puuritam jàpp naa ne loo doy waar doy waar say bakkaar mënut a dem ba yegg foofu loolu kon ngallawaa bi ñu ko sàggane day leen ko def lu mu néew néew benn yoon par jour soo mënoon di ko def suba téeméer ngoon téeméer mooy la gën waaye lu mu néew néew trois minutes ngallawaa bu ñu ko seytaane xañ trois minutes subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi trois minutes nga am téeméer suñu borom yàlla jagleel la loolu loolu mbokk da ngay gis ni yiw la boo xam ne ah kenn xamul nu mu toll borom xam-xam ñoom nañu ixtilaaf bàkkaar yooyu yan bàkkaar la ndax bàkkaar yu mag yi la am bàkkaar yu mag yi bokkuñu ca am nañu ne bàkkaar yu mag yi bokkuñu ca bàkkaar yu ndaw yi ña la doonte ne am nañu ne nañ yem fi yonent bi yem yonent bi nee na boo ko defee ñu baal la say bakkaar yow defal rek te rafet jot na yàlla dana ma baal samay bakkaar doonte ne ne suñu borom it am na lu ñu sant jaamu yàlla mooy alkabair boo ko defee fokk nga tub ko tub spécial loolu mbokk mi ngi noonu waaye daal xéewal la gu ñu yàlla ubbil foofu ngal la way xéewal googu yàlla nañu yàlla jàppale ba bañ ko ñu bañ koo sàggane naam amma hadis bi ñu mujjee jàng ki koy nettali mooy Juwayra bint al-Xaarisa nekkoon soxna ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha qaalat qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimaat ay yow Juwayra wax naa sa gannaaw ñeenti kaddu law wuzinat bima qulti munzul yawm la wasanat hunna buñ ko pesé woon ak li nga wax ci journée tey bi yépp loolee dana ko gën a diis mooy subhanallah wa bihamdihi subhanallah waaw subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi adada xalqihi maa ngi tudd sellug yàlla ànd ak de ko sant lu toll ni la yàlla bind wa rida nafsihi loo toll ne lay gërëm loo suñu borom wa zinata arshihi loo toll ne diisu waayu arshu rahman wa midaada kalimaati loo toll ne daajay bind ay kaddoom axrajahu muslim muslim solo na ko mbokk suñu yaay juweera dafa julli fajar ba pare toog fa mu toog di def zikrullah wa yonent bi xëy am fu mu doon dem bàyyi ko ma nga toog fa mu toog di def zikrullah yonent bi doxe soxlaam ba dellu siwaat suñu yaay juweera mi ngi toog di def zikrullah mi ngi noonu te mbokk zikrullah sa xol buy dund doo ci doyle doo ci doyle Usman ibn Affan daana wax ni nit ñi bu ñuy jàngal quran di sonn ko doylu xol yi ñu dundul waaye bu xol yi dundoon nit du jàngal quran ba doy li ci ñu noonu bokk na it ci la nga xamee ne nii ñiy gëstu hadis wax nañ ko radiallahu anhu dem na jiite makka ñu sëlmal gay mu jóg taxaw commencé alif lam mim baqara avant ñuy nodd fajar mu jàng minal jinati wan nas alquran yi mu jàng ko ci benn rakka mi ngi noonu radiallahu anhu almuhim kon zikrullah bu sa xol di dund ku mel ni ibnul qayim rahimahullah ne day mel ni rek jën bi ñu dugal biir géej foofu lay féexi boo ko génnee rek am na problème loolu tax jullit dëgg-dëgg bu teqali ko zikru la lay am problème yonent bi dellu si na fekk jooyre mi ngi toog doonte ne xadis boobu am na ñu koy génne ci beneen forme di ko génne ci turu safiya ne dafa yoroon ñeenti junni xooxi tàndarma déjà yal na yàlla dolli yërmande sunu mag ba Cheikh Souleymane Gueye bu daan wax hadis boobu mu ne gaa yi nañ xool ñeenti junni xooxi tàndarma ñu calcul xoox bu ne rek deux grammes lu égal huit kilos mi ngi noonu kon loolu moom mbokk hadis boobu wérul hadis bay wax ne dafa yoroon ay junni tàndarma di ko zikr wérul loolee ca la gaa yi jëlee ay kurus ak yu demee noonu juwayra dafa toogoon zikrullah rasul sallallahu alayhi wasallam ñëw mu ne ko ah juwayra sonn nga sa zikrullah bi de waaye wax naa sa gannaaw ñeenti kàddu day moo gën a diis li nga wax lépp la chaque ne soxna si dana ko wax jàngal ma ko mu ne ko mooy lan subhanallah bihamdihi moom la ñu wax sànq ku ca wax téeméer lan moo lay ñeel ba suñ cam fàtteego bañ la baal say bakkaar ba bari woon mel ni póoruti géej mu ne nag moom dafa wax subhanallah bihamdihi adada xalq maa ngi tudd sellug yàlla ànd ak di ko sant ci lu toll ni li yàlla bind ca mbokk lu yàlla bind rek mi ngi sabbal yàlla am déet yusabbihu lahu samawatu sabu wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lu nekk ci kaw asamaan ak suuf lu mi ngi sabbal yàlla loolu tax mu ne ñi ngi tudd sàbbe ak yàlla ak cantam lu toll ni li mu bind ma gaa yi ndax yàlla xam nga lu mu bind ndax suñ càmm xam nga fi nga toog nii bokk na lu scientifique yi di wax chaque seconde yàlla bind na ci yow vingt millions de cellules subhanallah vingt millions de cellules ndax xam nga ñaata milliards de cellules la yàlla bind ci yow ndax xam nga biir cellule boobu ñaata bindaa fan la ci yàlla def loolee kon mbokk moo tax suñu borom ni qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi buñ jëloon géej yépp ngir bind kàddu yi borom bi nga xam ne lu muy amal daan kun fa yakun géej yi dana jeex ca du jeex bal buñ jëloon ndoxu géej munte bind ndoxu géej boo tanqoon géej am ak ndox li ci yàlla def ci mbindaafar ci ndox moomee nga bëggoon ko bind munta sotti waxumaa nag leneen loolee kon moo tax maa ngi tudd cantog yàlla ak sellam ci lu toll ni ah la mu bind adada xalq gannaaw ba wa rida nafsi maa ngi tudd yàlla lu toll ni lay kontaanloo yàlla ca mbokk yàlla day aji màgg yoo xam ne bu ñu ko doon mingileeg doomu aadama tey masalan da ngay gis koo xam ne soo dajee moom jox ko 1000 francs day kontaan lool ndax am na lu mu réer ji gis koo xam ne nii boo ko joxoon mille fan la jàpp da nga koy yàpp waaye boo ko joxoon dix mille mu jàpp ni ah tey am na kon waaye am na benn milliardaire boo xam ne boo daje woon ak moom di ko jox ay cent mille da nga koy fonto mi ngi noonu amaa nag boo ko defaloon un virement de dix milliards ah loolu dana ko kontaan loo kon nag sunu borom kenn du ko mi ngi lekki jaama waaye daal yow yaa ngi naan subhanallah bihamdi maa ngi tudd sellu yàlla di ko sant lu toll ne la yàlla lay tax yàlla kontaan ci man lu toll ne lay tax yàlla kontaan ci man rida nafsi gannaaw ba it maa ngi tudd sellug yàlla ak ànd ak dëkk sant lu toll ni en ah diisaayu arsham ba diisaayu arsham ba mooy zinat arsh ca mbokk arsh rahman asamaani juróom-ñaar yonente bi alayhi salaam nee na suñ koy méngalee kursi bi ko tiim dafa mel ni yi mu jëloon benn jaaro dem ci benn désert nga sànni ko fa mu ne nag désert bi ni mu ëppee jaaro bi noonu la kursi ëppee asamaani juróom-ñaar waaye arshu rahmaan it na mu ëppee kursi mooy na kursi ëppee asamaani juróom-ñaar kon mbokk kursi arshu rahmaan xajul ci bopp doomu aadama ndax asamaani juróom-ñaar xajagul ci bopp scientifique yi mi ngi noonu. nga ne kon yaa ngi tudd sellug yàlla lu toll ne point ba nga xam ne aracham ba am na ko loolu mbokk may kaddu yoo xam ne nga la waaye dañ ko wat di ko wax lu bëri tàmmalal sa bopp foo julli ba pare nga wax ko subhanallah bihamdihi maa ngi tudd sellug yàlla ànd ak di ko sant adada xalqihi lu toll ni la muy bind wa rida nafsihi lay ak lu toll ne lay gërëmloo bakkanam ba wa zinata arshihi lu toll ni biir saa yu arsham ba wa midaada kalimatihi ak lu toll ni daa ja nga xam ne nii moom mooy bind la nga xamee ne nii moom mooy ay kaddoom jalla wa ala mi ngi noonu.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا اله الا الله حب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم
kon mbokk ñaari xadis yi ñuy jeexale insha allah mooy xadis yi abi said القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يننت بريدان وخني الباقيات الصالحات la nga xam ne mooy aji sax ya aji des ya ca doon yu yiw ya mooy laa ilaha illa allah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah mbokkoo adduna bi ñu nekk suñ borom indi na fi ab taar borom bi nee na almaalu walbanuun zinatu lxayaati dunia alal ji mooy lan kër yi taaru yi oto yi jardin yi compte bancaire yi doom yi nga xam ne yàlla wërsëgal na la ko suñ borom nee na lii de taaru àdduna la waaye ndax mas ngeen gis kuy dem bàmmeel ànd ak immeuble yi ak doom ya déedéet doom yi lu ñu yooxu yooxu lu ñu jooy jooy bu ñu demee ca bàmmeel bi yow rek yaay dugg de yow rek kay dugg su ko defee kon lan mooy li sax ànd ak yow mooy jëf joo baax da nga xam ne dafa sell moo lay jiitu boo demee bàmmeel mook yow ay ànd bu la yàlla deqalee yowmul xisaab yéenay ànd yéenay ànd ci biir àjjana ya loolu nag yeneen ci bi ne bokk na ya ca gën a yomb gën caa mat gën caa sell muy ñeenti kàddu yi ñeenti kàddu yooyu mooy lan wala boog juróomi kàddu yi am ñeenti la ci indi fii naam mooy laa ilaha illallah muy juróomi kàddu la ilaha illallah moo ci gën a màgg jàng nga ko sànq mooy kenn yeyoowul ñu koy jaamu kudul yàlla subhanallah yaa ngi tudd selluk yàlla wallahu akbar yaa ngi tudd màggaayu yàlla walhamdulillah yaa ngi tudd cantug yàlla wala hawla wala quwata illa billah amul kenn ku am pexe mën a wëlbati dara wala ku am pexe mën a jot ci dara lu dul ci ndimbalu yàlla subhanahu wa taala muy la hawla wala quwata illa billah la hawla kenn mënu laa dindi ci problème ci tiis ci feebar wëlbati ko wala quwa kenn mënu laa ñoddel benn njëriñ lu dul yàlla subhanahu wa taala lii mbokk mooy la nga xamee ni nii moom la yonente bi alei salatu wasalaam wax muy albaqiyatu salihat yàlla war sëgal na la juróomi baaraam ci sa loxo ndeyjoor bi gàllawaay de ci zikré yeneen ci bàyyi salaam daana wax ne fekk na jigéen ñi ñu toog mu ne waay soxna yi bari leen def zikrullah te di ka lem ci seeni baaraam di ka lem ci seeni baaraam ndax baaraam yii kat fa innahunna masulatun mustantaqatun yawm alqiyama dañ leen di laaj ñuy nettali liñ doon def juróomi baaraam la subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah lii mbokk baqiyatu salihat loo ci mën a baril bari lan amma hadis bi ci tege bi ñu mujjee an samurata ibn jundub radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi nee na ahabbul kalami ila allah arbaa la yàlla gën a bëgg ci kàddu yi ñeent la la yadurruka bi ayyihinna bada'ta du la lor ci ban nga ciy commencé subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yonent bi alei salatu wasalaam nee na li yàlla gën a bëgg ci kàddu yi mooy ñeenti yi lan la ñuy jàngal ñeenti yi ku ko saxal di wax yàlla bëgg la ndax yàlla da koo bëgg kon doomu aadama rek yow li nga bëgg ki nga xam ne mi ngi dëkk di la ko jox bu yàggee doo ko bëgg waay ah kay suñu borom nag daa bëgg kaddu yooyu looloo tax jaam bi nga saxal di wax bu yàggee yàlla da koy bëgg suñu yonent alayhi salaam nag ne fu la neex tàmbalee bu la neexee subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar bu la neexee allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah nee na foo ci tàmbalee amul benn problème ci lii tamit nañ xam ne bokk na li gën a siiw mooy buñ jullee ba pare ku nekk ci ñun day def subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett tëjee ko laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir waaye nag léeg-léeg ngalla waay del def beneen zikr boo xam ne yëpp ci yonent bi la jóge te mooy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bu ne nga def ko vingt cinq fois mu nekk cent ñeenti kaddu yi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar bu ne nga def ko vingt cinq bu ko defee mu nekk cent loolu ci zikr yi nga xam ne léeg-léeg de boo defee 33 léeg-léeg del def 25 25 mbokk li mooy kon li yàlla dogaloon ñu war koo jël yal na yàlla jàppale ñu ñu koy fàttali ko fu ñu mën a toll mu jàppale ñu ñu koy sant ci boole mi xéewalam jàppale ñu jaamu ko jaamu gu sell wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal kan la ñuy jëfandikoo xadisu daif ak kañ lañ ko dul jëfandikoo loolu de borom xam-xam yi dañ cee am la nga xam ne mooy ak wuute am na la ëpp ci borom xam-xam yi lañuy wax mooy xadis bi bu dee xadisu daif la kenn du ko jëfee ci ay atte mi ngi noonu kenn du ko jëfee ci loo xam ne ay pas-pas la amma bu dee ay ngëneel lu mel ne côté zikr côté du'a côté def lu baax loolee mën nañ caa jëfee xadisu daif xadisu daif mooy ñi nekk di xadis bi am na ca kenn wala koo xam ne ak wéram ci wattu xadis des na bu dee ne ab fenkat la moom dañ naan mawdu xadisu la ñuy sànni mais bu dee ñi ko solo ñëpp ñu baax lañu waaye nag am na ci ñoo xam ne seen wattu des na loolu dañ naan xadis bi dafa lompañ ñoom ñu ne kon su dee ci ngëneel mën na si koo jëfee donte na am na ci borom xam-xam yu gën a fiir ñoom dañu naan maadaama dayif la kenn du ko jëfe ci dara mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam alako bismillah naam naam naam
islam ci ci alquran karim njaba njaba njabar yi nga xam ne ñoo la njabaral firan bi nga xam ne ñoom ñoo nañ pour pour jàkkoon jàkkaarlu ak ak ak Moussa alayhi salaatu salaam bu ñëwee ci Firawna ñoom àdduna ki sama seen xol li ñuy wax Firawna mooy loolu la mooy suñu fay suñu gañ te Firawna mu jëm lay mel ne gis xol xol boobu ci saa si bu ñu bu ñu bu ñu confronté ba ba ñu gis dëgg rek ñu gëm yàlla su ñu gëmee yàlla Firawna mooy wax tey dafay ndërëy ñu ne loolu suñu problème mooy rek ñun yàlla bàyyi suñu baax ak yaa yaa yaa ñu nan la ñuy jàngatee loolu xol boo xam ne bi saa saa si àdduna bi su demee ci saa saa mu mu gëm yàlla ba nga xam ne ragatul deeru dara nan la ñu mën a jël ñu julli ñu mën a kii boobu xisu boobu noonu.
wala ku ne xaar liñ ci mën a jëriñoo mooy ñu xam ne suñu xol yi ci loxo yàlla la nekk yàlla moo koy urbati nu mu ko neexee ci sabab bu mu ko neexee ndax njabar yi li ñu gis ba xam ne Moussa mi ngi ci dëgg firaw na gis na ko. suñu borom mu ne jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa xam nañ dëgg ne Moussa li muy wax ci yàlla la jóge mais bañ nañ ko ngir réy réylu ak tooñ gi nekk ci ñoom amma njabar yi yàlla ñoom baaxe na leen bi ñuy jóge seen i kër ñi ngi ñëw ngir pay gi leen firaw na digg ak place yi mu leen dig mais bi leen yàlla wone dëgg yàlla dëppale seen xol ñu gëm dëgg googee loolu moom la ab julit di war a ñaan am na ci it ay ñaan goo xam ne nii siiw na doonte ne ne la xadis la borom xam-xam yi ñu ne nekkul lu wér na xadis la waaye sens bu am solo la mooy yàlla yàlla nag ñu woon dëgg te wërsëgal ñu jaar ci woon ñu neen te wërsëgal ñu moytu ko daan ca mën a jàng it ne mujj gu rafet mooy li am solo doomu aadama bi kenn xamul fan la jëm tànk xamuñu ci lim dee doomu aadama bi mën ngaa dund ci musiba soixante-dix ans ba bis bi ngay dee yàlla wëlbati la nga jaar yoon bu jub naka noonu it waliyaas billah nit ki mën ngaa doon ci njub ba baa ngay dee nga xëy xëy débiye yàlla tàbbal la sa wara li am solo mooy ak mujj looloo tax borom xam-xam yu jëkk ya la leen teewoon a nelaw mooy lan la ñuy mujje yàlla na yàlla rafetal suñu mujj mi ngi noonu waaw waaw bismillah naam waaw waaw aleykum salaam wa rahmatullah
rawal moom dañuy faral di dégg muy jaabante ci gëm nañu jabakat yu bari tax loolu am na wala lu ñu wax nii rek wala xuraan.
mu ne mu ne.
rawal rawal.
rawal. waaw.
ñaareel ba mooy midaada kalimaat yi kaddu yàlla yi moom wax ndax mooy lu mu waje cee jiiram wala kaddu yàlla
affaire rawxaan loolu tariyax yi ñoo koy wax rawxaan yooyu du dara lu dul seytaan yi ñuy jokkool loolu la ñuy tudd rawxaan pour ndax nit ñi ñu jàpp ne xéewal la gu bawoo ci yàlla rawxaan bi nee na seytaan rek la ñuy jokkool mi nga noonu ñoom la barab bi ne yuallimuna naasa sihr amma ndax kalimaati yi mooy ay téeréem déedéet téere yi daa bokk ci kaddu yàlla waaye yàlla subhanahu wa taala nee na innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun kalimatullah mooy lépp loo xam ne ay ndigalam yu wàcce téeréem la lu mu waxe ki yonentam la waaye la nga xam ne bind na ko ca kàddam ga nga xam ne moom mooy kun fa yakun wallahu subhanahu wa taala aalam naam mbokk bi ci gannaaw waaw waaw bismillah naam waaw waaw ñaar yëpp a mën a nekk man ngaa ñëw sangu set soo paree sangu sa saabu foofu nag dana jafe laaloo sa awra soo paree jàpp génn bu la neexee sangu sa saabu ba pare wëlbati ko waat sangu set loolu lépp da ngay gis ni lu mën a nekk la wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal waaw ñu mujj ca mbokk bala rek bismillah waaw ah ah waaw waaw su may julli may dem ba ci digg bi ma naan ndax man ñaari rakk laa julli am ñetti rakk laa julli su boobaa da ngay jàpp ne ñaar yi moom wóor na ñetti bi ngay sikk sàkk kon indiwaatal ñetteelu rakka bu dee timisa nga xam ne julli nga jeex na bu dee gee nga indi ñeenteelu rakka soo paree nag ba taaye ba pare avant ngay sëlmal nga sujjuut ñaari sujjuut doog a sëlmal heure booy sikk sàkka da ngay jël la gën a néew daa di mottali avant ngay sëlmal nga daa di sujjuut ñaari sujjuut wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk